xam nga doon nañu wax ni pourquoi ñu jënd ñuy def ñu jënd ñu jënd denrée alimentaire am na ñu doon wax pourquoi defuñu cash transfert maanaam cash transfert mooy jël xaalis jaarale ko par Orange Money wala jaaree ko peut-être ay wari et cetera pour que askan bi jot ko mais choix dund gi dafa nekk choix bu am solo déjà maanaam nu mbir mu toll du lu rëy la du lu ndaw. loo xam ni dafay dem ci un million cent mille ménages du lu ndaw donc boo leen jëndalee dund leer na ne koo jox dund dana ko téye leer na koo jox dund danañu fexe ba mu egg ci moom te dana ni fànn bu fekkoon cash transfert la nit ki mën nga ko jox xaalis mais kenn du xam ndax jot na ko wala jotu ko donc du ñu fa du nekkul lu fàng aussi bu ko jëlee mën na ko jëndee leneen lu dul dund donc jël daf ko dund moo gënoon mu nekk option bu gën. ci option yi en plus képp koo xam ni maanaam liggéey nga ci mbir mi commerçant yi dañoo jënd ci ñoom donc def nañu am nañ ci loo xam ni au moins gagné nañ ko ci les transporteurs aussi ñoom tamit liggéey nañ ci parce que jëlee dund gi ci magasin de stockage yóbbu ko dans les quatorze régions liggéey nga ci liggéey boo xam ni maanaam day dafay am impact ci économie dëkk bi les manutentionnaires il y a des milliers et des milliers de manutentionnaires yu ci liggéey ku ci nekk au moins tonne bu nekk minimum fayeeku nga entre euh, sept cent cinquante mille francs ba léeg sax mille cinq cent francs la ton kooku dafa nekk liggéey boo xam ni pendant la période de crise ñoom au moins am nañ ci revenu boo jëlee les taximan boo demee au niveau des points de distribution taximan yi dañoo rang ku ci nekk dàq nga ci sa wërsëg am nga ci sa wërsëg lekk nga ci ko ci boo demee charretier yi wala borom puus-puus yi ku ci nekk am na loo xam ni jël nga ko ci maanaam gañee nga ko ci te loolu dafa nekk lu am solo. ay vérificateurs 5000 vérificateurs dañ leen ci recruter fay leen durant tout le processus ku ci nekk 70 mille francs de francs fa donc loolu koppar la yoo xam ni fekkoon dañ leen def cash transfert xaalis boobu du dugg ci askan bi ci opérateur téléphone bi lay dugg donc loolu dafa laaj. ñu bàyyi ci xel xam ni kat soit li ñu jël muy soit donc des denrées alimentaires dafa nekk un choix boo xam ni choix bu leer la choix approprié boo ko doon comparé yeneen dëkk yi sax Côte d'Ivoire def nañ cash transfert mais gis nañu lu mu jur. Bénin def nañ cash transfert mais pour ñoo xam ni euh, euh, une une population très faible de bénéficiaires très faibles et cetera et donc vraiment choix bi nga xam ni président de la République daf nekk dafa nekk choix bu am solo. te yaakaar nañ gis nañ ko permettre mën na ñu gis fu saaku dugg ak fu saaku duggul mu ni fànn leer nañ